asalaamaaleykum suñu mbokk internetu seen seen info TV tey jii ñu ngi nii si marché Kër Massar village ñu fekk fi benn mouvement jeune bu tuddu Kër Massar suma kër ñuy def benn liggéey bu am solo ñu ngi nii ci biir marché bi pour ñu respecter port masque yi ak moytu tamit rassemblement bi bu ko defee ñu dem si seet jël kenn ci ñoom. man maa ngi tudd Moussa Diouf dëkk Kër Massar nekk membre Kër Massar suñu kër. waaw mouvement Kër Massar suñu kër dafa juddu soo gisee si contexte bi mu juddoo mooy contexte bi nga xam ne moo moo frappé adduna bi moo frappé suñu dëkk muy Sénégal. et donc on a vu que ne suñu dëkk muy Kër Massar bi nga xam ne fii lañ dëkk fii lañ juddoo fii lañ yaroo donc euh, bi mu amee ay cas Covid 19. ont commencé à stigmatiser Kermassar, Massar chaque jour nga Kermassar. Massar donc nous les dignes fils de Kër Massar ñu ñi nga xam ñoo dëkk Kër Massar ñu boole suñuy doole boole def say def dank Covid 19 bi au niveau de de voilà comme ni comme ni ngeen ko gisee yeen yeen ko gis ni yeen ko filmé ci marché keur Massar bi bii mooy suñu deuxième plan d'action fi ci marché bi ñewoon jëkkoon nañ fi ñëw def sensibilisation après bi défé sensibilisation aussi on s'est réuni ci bureau bi comité de pilotage bi ñu wax ne dinañ fi ñëwaat buñ fi ñëwaat nak bu ñuy ñëwaat du ñu ñëwaat ak sensibilisation bi dañuy ñëw ak ay mesures parce que ku ne xam na ne cas communautaire yi mu ngi commencé bari donc comme marché bi aussi bok na ci marché yi nga xam ne ñoo fonctionnel fi au niveau de keur Massar donc ñu bari dañuy daw ñëw fi tay nak dañ ñëwoon kon fan dañuy ñëw ak ay mesures mesure bi ñu indi nag mooy gis ngeen ko mooy porte bu nekk dañ fa teg suñu ay nit teg fa ñi nga xam ne ñooy membre mouvement bi ku fay dugg ñu xool ba xam takk nga masque dañuy respecter les mesures barrières ba pare jox la gel hydroalcoolique sa loxo nga laal ko ba pare doog a accéder si marché bi képp koo xam te nag respecté woo norme norme yooyu noonu nga xam ne moom lañ teg doo am accès si marché bi doo fa dugg waaw ñi ñu ñi ci àndal mooy waa Kër Massar suñu kër donc Kër Massar comme 133 quartier la donc aussi am nañ fu nekk représentant te isam ñu ngi gën a lawal suñuy bànqaas parce que mouvement bi je pense que ne amul amul dara luy politique mais nag itam n'empêche que ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité Kër Massar yi wax nañ leen suñu mbébét wax nañ leen suñu yéene wax nañ leen lépp li nga xamante ne bëgg nañ ko fii ci Kër Massar donc ñoom aussi rafetlu nañ ko donc ici ñoom pare nañ pour accompagner ñu ak ay mesures yoo xamante moom lañ am. agent mairie bi ñoom depuis depuis le début nag ba ba bañ tëjee marché Aynou Mady aussi nga xam ne marché bii rek moo doon fonctionnel ñoom ñu ngi fi mais itam sen taxaway dina ci dina ci itam donc relation jam la relation donc ñom itam ñu ngi jappalé parce que aussi des fois ñom ñoy nous ku donc ñom ñu li ñu ñun tamit aussi ñu ngi leen appel que ñun suñu objectif 0K. donc kermassar 0K, nous nak dañuy lancé ñep ñi nga xamanteni ñoo ak ñi nga bëgg appel respecter les mesures. barrière mooy que kuy dugg si na nga takk sa masque ba pare boo amee gel hydroalcoolique nga koy laal sa loxo balaa ngay jëflanteel ak képp koo xamante mu ngi fii ci marché wala mu ngi ci biir Kër Massar. waaw ah, vraiment suñu suñu suñ kàddu yu mujj di di leen gërëm di di sant waa seen info parce que lii yombul aussi ngeen am benn organe de presse boo xam ne day ñëw pour fësal seen liggéey ba pare aussi pour mën a jéem a vulgariser message bi nga bëgg a askan ñu ngi leen di leen gërëm vraiment di wax nit ñi itam que nañ rek li li li des si xeex bi bareetul yàlla léegi